ndey Ndiaye Ndoye maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. alors di nuyu suñu auditeur ak auditrice mhm. yu waa rajo bi. alors ngay euh, psychosociologue tey jii. Euh, mm. gis nañ ni euh, meurtre yi bëri na ñuy faat ay bakkan lu ci mel ni Sogas waaye tamit ca Thiès gis nañ ko lan moo waral lu ni mel. la li nga xam ne moom la ñu wax ne moo xew Sogas nit tëral nit rendi ko ndax maa ëpp doole wala maa ko mën loolu du yoon. parce que ay ay nit bu ñu amee bor bor bu amee si diggante ñaari nit médiation sax war na cee mën a am parce que ki nga xamante ne moom la fay amul war na jàkkaarloo ki ko ki nga xam ne moom la war a fay mu wax ko dëgg parce que les sénégalais nag ñu ci bëree bëri dañ dul wax dëgg wax ko ci dëgg yi dañoo néew léegi yow amee naa la boor man amaguma lu ma la fayee dama lay ñaan jekk ne la xaaral ba tey dat ma fay la wala nangam nangam wax daal wala am na nit ñoo xam ne ña nga woon sokaas peut-être nañu ne ñii kat euh, seen juboo neexul ñu jëm leen jubaale ce qu'on appelle la médiation la conciliation nit ñi dañu war di jubaale nit yi parce que jamono bi ñu tollu nii sëriñ boobu ñu rey ñu ngi jaale njabootam bu fekkente ne dafa am ay doom am soxna am yaay am papa am ay ndijaay am jarbaat dëkk ci kër te moom la ñu yaakaaroon mu leen di jàppale ci dund bi waa kooku demee kan moo leen di remplacer Sénégal yi man sigil ndigaale ah, dañuy ñëw jaale def fa deux cent francs wala cinq cent dem seen yoon jab njaboot ba nag toog ne tucc moom ak njabootam di wéet wéetaay boobu moom si boppam mën na ko indil jafe mën na ko indil njabootam parce que xale yi bu ñu xëyee yaay am sam papa loolu rek question boobu rek bu ndeysaan bu ñu koy posé jigéen dafay metti ndax dafay nekk si situation boo xam ne day metti ci moom day sëngeem day jooy day laxatu day nëbbatu lu nekk dina ko def te loolu nit rek moo ko ko teg hmm. du yoon te loi bi tamit mën nañ si def benn point loi bi dañu war di appliquer loi bi parce que bu fekkonte ne ku def loolu ñu solal la sa yére wane la ci tele bi ne diwu mi moo rëy diwu mii dañ koy tëj nangam wala dañ koy def nangam nit ñi dinañu moytu lu Sénégal Sénégal gis leen mala la comme gis leen ma la ñu bëgg nañu wane ñiy def lu ñaaw wane ñiy def lu baax. Mm-hmm. tey jii am na soxna bu fi jóge ñëpp a ngi koy tagg ñëpp a ngi joxe euh, euh, seede mais lan la doon def moom am na xaalis wante jëlul xaalis bi di ko téeli téelee di ko wane day dem sa morgue ba jënd ay euh, ni ñu koy waxee sangaay pour ku fa jógee te mënuñu koo defar ñu jël sangaay boobu defar ko mënuñu koo jëndal càngaay par exemple day day joxe day yëwén wala mu dem moom ci boppam mën na ko mu def am jàng na ko ba mën ko di dimbali néew ji doole yi te kenn du ko yëg waaw du ko yëgle du ko yéene comme avisé ab di communiqué. très bien wax nañu lu bëri ci moom leneen. Euh, euh, dee dee yooyu nit yi di dee. di bàyyi ay jirim c'est des orphelins orphelins yooyu bu fekkee dañuy jàng école ku leen di ku leen di taxaw. Mhm. ku fi nekkoon dem na. yaay jim mu ngi war a toog yor leen am na ci lu bëri loo xamante ne situation boo koy dund mën na dem ba indi la ngay taxawaalu ci mbedd tey jii nii li ma la ko waxee woon sànq ñu ngi woon Ziguinchor démb ay jigéen jóge nañu ay quartiers yu sore ñëw di yalwaan ci benn quartier bu ñu nekkoon ma laajte waaye yéen soxna yi xam nga man fu ma dem rek damay bàyyi xale yi dugg ma laajte waaye soxna yi ñu ñaan ñu ñu yelwaan ñu dinañ leen sarax mais laaj leen waa lu tax ngay yelwaan yow tamit soxna si ni nga mel nangam mu ne sama borom kër dafa màgget te damaa yor njaboot te njaboot bi ma maa yor waa xam nga kooku nee na day yelwaan si quartier boobu su amee lu mu duggee rek mu daw dugg dem toggi jox njabootam waa léegi ñu nekk ci dëkk bu mel noonu ak leneen ak leneen nit ñi bëgg fee nekk jël jëf ju ñaaw du yoon nañ jóg taxaw. kon mu mel ni faat bakkan yooyu lii bëri na lu mu mën a jur. li muy jur moo dafa bëri mm-hmm. parce que li muy jur xam nga te wax naa la ci wéetaay bi soxna bi di wéet gisatul ki nga xam ne moom la doon nekkal bés bu nekk xam nga kooku wéetaay la. wet la parce que doomam yi war nañoo xëy ndékki war nañoo xëy añ war nañoo xëy reer waa soo amul ko ko jox dépense nan lay def. te fekk kër googu noonu euh, ndijaay ma nga fa goro ma nga fa njëkke ma nga fa keneen a nga fa jànq bay liggéey sax ma nga fa ñooñu ku leen di dundal ku leen di sàng ku leen di yor ak Sénégal gi nga xam ne bés bu nekk ñu def mbeex même may football bi passé nii famille yu bëri jënd nañ seen doom yi mayee solo leen ñun ñii sax fi ñu toll nii ndeysaan demb rek mayee naa benn mayu fële sa Kolda bi ñu rombee foofu xale bu jigéen bu amul ma sumbi bi li ma soloon jox ko nekk bàcc ko fi nga weer balaa football bi gaaw nga daw seetaani loolu lépp pour lui faire plaisir waaye bu fekkente ne nag ñi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bi seen loxo jotul seen gannaaw gisuñu ku leen jàppale ñoo ñooñu sëngeem la ñuy dëkkee te xale yi mën nañoo màgg di def leneen gis si biir quartier bi ay xale di def ay mbir mm. wala ñu di leen jaay looloo xam ne buur da koy tere wala yàlla bëgg ko ay nit di leen oonaat yóbbal ma kii diw yóbbal ma kii diw dégg nañ ko maanaam yi ñuy yi ñuy utiliser yi ñuy tux ak yi ñuy def yi naan ak yooyu ñu dugal ci ay xale yoo xam ne buñ la ko defloo may la ñaar téeméer wala may la juróom fukk nga dem yóbbu ko sa yaay yéen a ngi lekk léegi yéen a ngi lekk deret donc il faut que sénégalais yi changé comportement àddina moo changé te comme ñoom réew yi ñu wër yëpp mu ngi tàkk ñun bëgguñoo taal Sénégal bëgguñu ko taal Sénégal hmm. nañuy xoolaat jikko yi ngor sàmm ngor wax naa la ko barke démb ba ñu demee Tiwaawan ndeysaan suñu taan suñu tonton suñu tonton Serigne Mbaye Sy Abdou daf ñoo fàttali taxaw place yu jigéen ba nga xam ne eh, yonent bi wax na ko bu ngeen bu bu ngeen amee lu ngeen di laaj laaj leen ko soxna Aïcha mu wax ñu place yu jigéen ci biir société sénégalaise wante place boobu nag joxuñu ko jigéen ñi de Sénégal fu bëree bëree bëri place boobu yonent bi waxoon na si sunnaam nañu ko laaj soxna Aïcha mais teguñu ko fa. Hmm. nañu xoolaat suñu bopp. Hmm. nañu def ce qu'on appelle ci tubaab introspection. mooy toog si ruqu mën a kan lan laa war a def fan laa war a dugg kan laa war a waxal kan laa war a fréquenté nan laa war a amee jom ba amal sama bopp dimbali sama yaay dimbali sama papa dimbali sama bopp régler sama bopp ba nga xam ne su ma amee soxna dinaa ko téye man tam su ma amee borom kër dinaa ko téye su ma amee njaboot dinaa ko rafetal loolu la ñu war a def jamono boobu lañ toll. mu ni loolu bokk ci pexe nga xamante ne moom la ñu war la pexe yi na pexe yi bëri na pexe yi mooy ñu jàngal nit ñu ngor indiwaat jom indiwaat euh, nu mu tudd wàññi sàggante sàggante dafa bëri dañu oyefal lu bëri kooku du du yoon nañu indiwaat ay modèle maanaam tëgg nit ne kii de lii lay def lii lay def lii lay def ñu filmer ko wane ko jël ñi nga xam ne ñu ngi def safaan buñ ko defee ñu waxaat ñoom même bu ñu wanewul seen kanam man de leen laaj lu la dugal ci lii lu tax nga def lii ñu daal di def analise bi ñu toog segg lii moo baax lii moo safaan lii moo baax lii mooy safaan dem ci école yi sensibiliser xale yi comme wër bi ñuy wër nii de ñun de suñu oto la ñu yor di wër ut jàmm jàmm la paix hmm. waaw jël suñuy këyit di wane di liir di joxante xalaat ak jigéen ñi ku nekk di wax xalaat ma ne xalaat xale yu ndaw yi gis nañ fi sax ay xale yoo xam ne ndeysaan ay way laago lañ leen tudde mooy personne à mobilité réduite démb bi ñuy wax Ziguinchor am na benn xale puune bu wax ba nit ñi di jooy ci saal bi waaye yooyu mooy lan suñu suñu suñu pulsion maanaam suñu nuñ koy waxee Sénégal euh, euh, émotion yi dafa génnoon ba nit ñi di jooy nit ñi di jooy yëkk seen yaram ba tuur seen rangoñ seede yàlla sunu borom mm-hmm. ndax ñu ngi nodd fi mm-hmm. donc pour fu dire que Sénégal dañoo war a soppi jikko am na ku ko wayoon soppi jikko dafa jot ci mbir njàng mi continuer li ñuy jàngal xale yi ni ñuy waxee ci télé bi surtout nag liy bëgg a ñëw période pré électorale bi nga xam ne lu nekk ñu ngi ko ciy dégg. Mhm. dañu war a soppi daañu ci wax mais lu jëm ci euh, wàllum dëj yi dañuy gis ne léeg-léeg dafay mel ni sax ay cérémonie euh, de mariage mu nekk lu xaw a doy waar bi laal nga aale mhm. tey ji mu mel ni ragalatuñu dee. non ken ragalul dara parce que mm. dañuy dañuy def nii rek bu ñu diwul gaañu na ñu ñëw pàcc pàccal jooy tuuti euh, daal di commencé waaye nan la ñuy def toog yi fan lañ koy toogee kuy ñëw ñaña ñaa jël téléphone yi ku nañu woo la lang nag lang gi te pourtant am na ñoo xamante ne boroom ñi moom dëj yi dañu naan dimbali leen ñu. Euh, euh, yemale fii dañu naan bés bii rek lañ koy yemale wante ñeneen ñooy ñëw di du dugg ci xelu nit yi pour ñu def pour ñu làng de ci pourtant soxna su fi jóge bu yàggu rek ñu ngi jaalewaat famille bi jaalewaat xale yi wax leen muñ leen seen yaay nit ku baax la wante moom dafa waxoon ne bu fu génnee nañu def lii mu jeex doom yi war war a taxaw def loolu kenn waru leen a wax ne euh, bu subaa defal lii yow toggal lale ñi naan ceeb laay lekk ñi mbaxal laay lekk ñi naan cere loolu du yoon nit ñi nañu am fit dëgër ne maa bañ maa bañ wax ko dafa jot de maa bañ wax ko dafa jot balaa wees. alors leneen mu wees. nit ñi ñu taxaw di wax maam si leen di sante waaw. alors leneen jëm rek ci euh, pression bi nga xamante ni daanaka sénégalais yu bëri amee nañ ko euh, jamono ji mhm. ginnaaw euh, défaite mhm. bi am ci kaw Sénégal kan bile waaye tamit li jëm ci campagne yi ñu yi ñu war a dem ci élection présidentielle mu nar a jur yi tamit yenn ci ay violence yoo xamante ne daanaka dañ koy faral di ko nemmeeku. ñu ngi ci di fagaru parce que nee nañu fagaru moo gën faju loolu nag mooy li ñu dox nii. parce que léegi ñu ñibbi sax sax bu soobee yàlla mais région Sénégal yëpp dañu dajale région yi ba bu gox bu nekk day ñëw ànd ak ay nitam ñu toog wax leen lan mooy jàmm ñu toog wax leen nu ñuy ute jàmm si en introduction ñu bàyyi leen nag ñoom ñu ñu jokkoor maajoor xaw ma nañ koy waxee maanaam def échange intéraction échange bi mooy ñun dañu jël bal bi takk teg ko ne population bi wax leen lu ngeen gis lu ngeen di dund lu ngeen ko dundee am na jigéen boo xam ne def na man élection yële sama doom dañ ko rey ci mbedd mi am ñoo xamante ne nee nañ si événement yi amoon euh, ki doomu diw bi gaañoo na moo tax ñu bëgg mu wax doomu diw bee ñooñu mënuñoo wax parce que ñu ngi jooy dañuy commencé asalaamaaleykum maaleykum salaam seen xol métti ñu jooyaat loo ñeneen donc loolu avant muy am ñun yaay yi jóg nañu ah maam yi parce que ñun ay maam lañu jóg nañu di wax nit ñi attention alt taxaw leen taxaw leen def seetlu nit ñi wax nañ ko de nit ñi nee nañu nañu dugg ci quartier yi nañu dugg nañ wax ci kër yi d'abord dans les chambres nañ commencé si néeg bi monsieur et madame soxna si ak borom kër gi ñoom bu ñu waxee ba déggoo ñu génn wax waa ëtt bi waa ëtt bi mooy xale yi wa ëtt bi mooy goro yi wa ëtt bi mooy maam wa ëtt bi mooy sax xarit yi bu ñu waxee ak ñoom génn dem ci quartier bi xale yee ko wax de xale yi nee nañ dina dem si ASC yi fépp war nañu faa dem waxtaan fu ñuy daje terrain football terrain basket terrain lépp nañu daje ñu waxtaan te xam ne gaañ bi su amee si nit yi lay jugee si nit ñi lay dellu parce que kuñ fi gaañ dinañ la seeti hôpital kuñ fi gaañ dinañ lijjanti say mbokk jëm la fa yóbbu te loolu bu fekkee nag loxo yi yoruñu ko a la ñuy def kenn du dem sàcc pour yóbbu benn néew par exemple benn région ba benn région buñ ko mënul buñ ko mënul foofu nañu moytu gaañ yi euh, laago yi daf siy feeñ da ngay gis ñu def dara ñu ne diw tànkam damm na ñu ne diw toj nañ bopp ba diw ñooñu kuy jënd garab yi hôpital ak ah hôpital yi ni seere léegi garab yi ni mu seere ak faj mi ne mu mettee nañu lu ñu Sénégal soppi jikko kilifa diina yaa ngi wax kilifa aada yaa ngi wax ñun waxkat yi ñu ngi wax mais nit ñi dafa mel ni dégg dafa mel dañoo dégg gumb doxlu nit ñi dañoo daw rek uti alal si alal rek lañ teg seen bët ci mhm. gis leen ma rek lañ teg seen bët loolu du yoon si biir kër yi nit ñi war nañoo jàng maa bañ du ma def boo waxee ñu naan diw dafa ñàkk kersa diw nangam yarawul déedéet diw dafa am fulla ne man du ma def lii nit ñi ñëw fële jóge fële ma sàmba ma dem ba jóge fële ñëw ne la da nga war a def nangam parce que lii moo xew lii moo xew rek la sama papa doon bañ dooy lebu maa bëgg sama papa jooju daf doon bañ lii moo xew waaw. en tout cas lii moo xew. Mhm. loolu rek lay bañ. Mhm. donc il faut que les gens acceptent de dire non. ni nga mën a waxee oui mhm. sama maam El Hadj Mansour Mbaye daf kay wax nee na quand on va aux élections j'ai le droit de dire non mais j'ai aussi droit de dire oui noonu la koy waxee ni ma mën a waxee waaw noonu laa mën a waxee déet sénégalais nag déet la ñu war a wax te jëm ci jom jëm ci ngor jëm ci àndandoo bu rafet jëm ci ànd fonk nawle bañ a jël dignité nit di ko bafoué bañ a jël nit di ko tuutal da ngay xool sax ay nit dañuy dem si benn manifestation ndax duma toog fii man lii laa laa war a toog lan la maam Abdou Aziz Dabba waxoon nee na boo ñëwee sa mbooloo fekk rang ba yem toogal fa rang ba yem si Malick maam Abdou ko waxoon fii ñëpp di ko dégg ay doomam di ko perpétuer waa léegi waruñoo mën a def ni yonante bi defoon est-ce que danaan ñëw ci mbooloo fekk nit ñi toog muy sëmbax sëmbax loo di dugg déedéet defu ko dañuy ñëw fekk mbooloo mi fii rang bi yem mu toog foofu sénégalais nañu modeste sénégalais nañu wàññi seen gàllaaj ñu jam leen sénégalais nañu xam lan yoon sénégalais nañu xam mooy lan mooy dëgg te autorité yor nguur gi nañuy sanctionné def ko ñaaw ñaawteef yi parce que buñ leen sanctionné wul ku dugg ñaari fan ñett ñu gisaat la nit ñi dañ naan bu ma demee ñu génn ma mais nañu topp yoon une loi elle est pour être appliquée nañu appliquer texte yi nañu appliquer loi yi wan nit ñi ne lii du yoon lii du dëgg boo defee lii lii la boo defee lii lii la boo defee lii lii la parce que kat sama xarit Imaam Ndiaye bi nekk Liberté 6 wax na ci meurtre assassinat wax na Ibn Abbas ni mu ko waxee nee na nit ku rey nit te nga sañ nga tey ko kooku safara la amul lay kenn du la layal. très bien maa ko doon liir léegi. dañ ko day kenn du la layal bon nag nañu nañu jël nit yi wax leen ne su ngeen defee nangam bu ngeen demee safara mooy seen kër loolu leen dugg ci àjjana ji nañu wan nit ñi li baax ak li ñaaw ak li bon. ak li rafet Ndeye Ndiaye Ndoye jërëjëf may fàttali rek ni psychosociologue nga ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf samay xarit waa Rewmi FM. jëf samay xarit waa Rewmi FM. jëf